dàmp la ñu jëm ndax ku am doom ba pare dañ laa war a dàmp am na yeneen circonstance séet dañ lay dàmp mm. dàmp bëri na façon ma waaw comme ni nga ko waxee bala boobu rek ma nuyu mbokku téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek képp sa dafa nekk lenn loo xamante ne dafa am solo te ñu bare aussi war nañ ko def ci yan circonstance wax nga ko jigéen bi nga xamante ne mm. ah, dafa wan lor ba euh, déku accoucher du mm. war nañ ko mun a dàmp jigéen bi nga xamante ne dañ la war a jël sax comme seet séet nuñ ko waxee moom tamit war nañ ko mun a dàmp wala ñi nga xamante aussi dañuy yëg coono boo xamante ne dafa ëpp ndax liggéey bi ñuy liggéey dafa bare ñoom tamit laaj na parfois ñu dàmp donc dañu dem taseeg benn soxna boo xamante ne nag moom daanaka da ko def sax sur waaye day wër euh, di dem di seeti ñenn ñi nga xamante ne dañ ko yelloo mu dem di leen di ko def xel tout en sachant que daf ko jàng euh, rax ci dolli aussi bokk ci famille bu mag bi nga xamante ne ñëpp ràññee lañ lañ leen ci dàmp te ñu dëkkee fee ca parcelle li ñuy def rek ñu dem xool soxla ñimma naka lay defee li nga xamante ne moom moo di dàmp rawatina à domicile ñu war a dàmp daal bëri na daal macha allah parce que buñ ko nalee lim duñ fi jógee moo tax ci gàttal rek dàmp moom boo nekkee jigéen wérul wala nga am yenn coono yoo xam ne dafa tar laaj na nga def ko ndax boo ko defee it dina la génneel gàllankoor yu bari waaw maanaam coono yi nga yëg sa yaram lépp da koy raxas ba mu set ci kàttanu yàlla waaw bu soobee yàlla daal boo ci jubloo rek incha allah nga ci gis njariñ normalement boo naree dàmp mën ngaa def euh, bu neexee dans la semaine bu fekkee da nga nekk di yëngu ci yenn yëngu yoo xam ne doo am jot boobu noonu dans la semaine mën nga def deux fois dans la semaine bu la neexee nga tànn benn jour bu la neex ñu ñoo defaral la mais bu nekkee jigéen wérul nga wala yaa ngi doog a accoucher mën nga def quinze fois waaw bu ko defee sa yaram mën a delluwaat comme ni nga nekkoon ci kàttanu yàlla. di nga soxla feuilles yi ma la tegal nii ndax di nga soxla xobu xewar di nga soxla xobu karasol di nga soxla paddalu poli di nga soxla euh, mbante maare yooyu yëpp da nga koy soxla ndax boo ko jëlee togg ba mu ñor boo baxalee rek fekk def nga sa première séance léegi soo paree nga dugg ci salle de bain bi ñu defal sa ñaari séance ndax première séance bi mooy gën a yàgg ndax boobu kinésithérapie la dinañ la defal massage bu jaar yoon dàmp la ba nga jaar yoon léegi soo paree nag ñu doog la defar nag deuxième séance ci salle de bain bi. jigéen bu amee doom wala bu nekkee ci yenn euh, nekkin yu muy nekkee ci mbirum jigéen yaram bi day ubbeeku même bopp bi tamit kenn du ko bàyyi ndax su nekkee da nga am doom tamit wala nga dugg néeg boo génnee. war nga di defar sa bopp bi ndax boo ko bàyyee noonu dangay ubbeeku léegi noonu ngay ubbeekoo boo ko laalul tamit sa yaram yëpp ay ubbeeku te jigéen dafa war a tëju pour première séance bi dinaa soxla quarité ndax quarité dafa baax si yaram ndax karité li muy def sax si nit mun man mii sama bopp sax mënuma koo cité ndax dafa bëri ma damay def quarité euh, bi jël na bi mélange ko si ak sama yeneen produit yi ngeen di gis ni ma mélange ko si léegi su ma paree ma ut huile camphré mélange ko si su ko defee li ngay yëg sa yaram ci kàttanu yàlla buñ la ko defee incha allah dinga am jàmm neexee yàlla Mado mu mel ne nag. Euh, mhm. ndàmp yi am ah, la dara jotulee sax donc moom e-, expliqué nañu ko bu baax Kebs comme ni ko waxee rek ci biir euh, li nga xamante ne moom élément bi. parce que wax na ko c'est vrai que dafa am dorteel ñan ñoo xamante ñoom ñoom moom euh, li nga xamante moom moo di lim naa ko sànq dañu fàtte sax limaale xale yi aussi ndax liiri ñoom tamit dañ leen war a mhm. mais moom aussi nee am na nit ñi nga xamante par rapport ak ni dem Sénégal wala dëkk bi demee tracas yi nga xamante ne daf coono beeg yooyu baax na aussi jigéen ah, wala munti góor bu ci munti doon mhm. nga def li nga xamante moom moo di dàmp bi léegi nag moom li ci évoluer mooy euh, très rarement ngay euh, bu njëkk nga doon gis euh, da nga war a déplacer moom ñuy déplacé wu ñëw fekk si la di la defal li nga xamante ne moom moo di dàmp bi donc ñoom léegi dañ koy def mais comme ni ma leen ko waxee moom daf ko jàng parce que croix rouge déjà foofu la nekkoon di def li nga xamante ne en tant que kinésithérapeute donc ah. mhm. a utiliser mun nga gaañ ki nga xamante moom moo di euh, euh, euh, patient bi parce que léeg-léeg di nga gis nit mu amee sciatique wala hernie bëgg dàmpalu woo ñenn ñoo xamante xamuñu ñu ñëw vibrer sa yaram mu gaañ la elle a insisté sur ça donc déjà faut savoir que boo koy def da ko war a jàng ba pare mu nekk lenn loo xamante ne doonay maam yi la comme waxoon naa leen ko sànq famille bu mag bi nekk parce que ñëpp ràññee leen ci loolu moom fa la bokk donc li ci gën a neex moom daf professionnel yokk ci yenn yoo xamante ne ay camphre la pour nga xamante ne dina la yëngal mais li ci gën a neex mooy dafay indaale ay xobam xob yoo xamante ne lu mel ne ay aldanke euh, mm. donc façon xob yoo xamante ne ay xobu niim yooyu ba xal ko ñu lu mu waree voilà naturel boo dàmpoo ba pare nag nee na boobu mooy première euh, étape bi après mu jëlaat la nga def deuxième étape bi nga xamante ne moom moo di euh, ndox bu tàng boobu lay jël di ko këpp ci sa yaram mais këpp si vraiment boo ko defee li ngay yëg ci sa yaram doo ko mën a expliquer mm-hmm. particularité dina maase góor dina maase jigéen nee na léeg-léeg sax ay couple yoo xamante ne dañuy ñëw mu maase leen bu fekkee da nga war a dem ba def deuxième partie bi day naan soxna si nanga dem mu expliquer la naka lay def déjà mi ngi lay jàngalaale sax euh, gratuitement leneen li ci neex aussi mooy njëg bi dafa nekk njëg boo xamante ne c'est pas du tout cher te euh, vraiment elle le fait euh, ay 7500 mais man sérieusement nee naa ko maire yokkal léegi sax demal ba 15000 francs parce que ñam naa ko mm. et vraiment c'est bien te li ci gën a neex moom bu la xoolee elle te diagnostique dina xam yow ñaata séance nga war a def di nga gis nit mu def benn yoon bàyyi alors que du noonu coono bi day gën a ñëwaat mm. donc dès qu'elle te voit elle te dira tant de séances nga war a def mais vraiment est-ce a est-ce qu'elle a un numéro pour ñu mën ko joindre aussi euh, oui donc xanaa ma joxe ko on peut la joindre 293 84 21 donc 77 293 84 21 mais vraiment euh, dàmp daal baax na ko nit yi war nañ koy mun di utiliser parce que jamono ji nit yi sonn nañu donte am na ay bienfaits yu baax yu nekk ci biir. waaw man li ma ci li ma ci bëggoon yokk rek mooy euh, li ñu fi wax yëpp boo koy xool la science a toujours existé. dañu ko reconnaître wul. tuddee ko des pratiques euh, un peu truc. baar baar ñoom la ñuy wax nit ñu weex ñi mm-hmm. mais science dafa mës a exister mm-hmm. muy massage muy mm-hmm. make muy gommage muy lu mu mënti doon dafa mës a am euh, fii Afrique waaw te dafa am loo xamante ne c'est une réalité qu'il le veuille ou pas mhm. produit naturel boo ko laalee molécule bi boo changé mhm. yokk ca leneen par force day am lu ñuy wax effet secondaire dans la durée donc koy boo koy xool bio bi ñuy wax France qui est mhm. une marque de fabrique bio bio bio bio fii la fekk bio fii fekk baax donc am na ci loo xamante ne tey ah, mais ñoom dañoo bëgg seen yëf moo tax voilà exactement donc derrière ça y a c'est vrai la mondialisation ñi ñi jaay économiquement ku ne jaay loolu weddiwuñu ko mm-hmm. et mais euh, am na ci yenn produits yoo am na ci produits yi nga xamante ne c'est des produits naturels de base nga am ko Sénégal cherul muy huile boo mënti soxla fii am na fi Sénégal euh, huile de baobab karité huile de baobab surtout huile de baobab mu am ci karaw ak ci yaram ci ci nit yooyu yëpp yooyu yëpp ay produits fu nekk la yoo xamante ne tey sénégalais yi macha allah tulukuna moom daf koy utiliser sax base tulukuna mi ngi exactement mais lépp lekk euh, pour pour pour pour pour jeexal ni Sénégal yi léegi ñu ngi commencé gëm la consommation transformation localement yi li ñuy mm-hmm. Sénégal mm-hmm. loolu mooy marque bi donc made in Sénégal mi ngi am mm-hmm. léegi Sénégal yaa ngi koy commencé gëm di ko jox parce que tu rencontres beaucoup de femmes yoo xamante ne léegi loolu la ñu def comme par exemple yenn marché yi bu amee parfois les week boo demee da ngay gis ay femmes sénégalaises yoo xamante ne dañ lay defaral ay savon di la defaral ay diw te yëpp à base de produits yi nga xamante ne c'est des produits naturels dañuy fekk baax Sénégal